waaye si waaw nuyu naa leen maa ngi tudd madame Dièye Fama di wax ci suñu tour directeur diaspora bu Banque Atlantique Sénégal ñoo ngi am kontante ak cawarte di waa diaspora africaine rawatina waa diaspora sénégalaise ci ñaari édition bi ñu duppee diaspora di tàmbale si le 2 bu le 12 mai 2024 muy xew-xew bu mucc ayib bi ngeen xam ni dina leen yombalal seen taxawaay si seen i jegeñaale ak mottali seen mëbët yi ngeen am ci Sénégal bi ngeen bàyyi dem si biir doxantu boobu ñuy amal France ak Italie dinañu leen présenter suñu groupe Banque Centrale Populaire nouvelle banque catholique Sénégal dinañu waxtaan ak yéen si ay buntu xewal yu ñu leen di ubbi loolu yëpp mu nekk ndax dañu boole suñu doole ànd ak groupe bancaire bu mag bu ñu boot di ngeen mën a xam li ñuy liggéey ak li ñu leen andi ci wàllu produit et service yu xarañ taxawal ñu wuyu seen bépp soxla jaarale ko ci wàllu daay xaalis ba ci investissement wala solution de prêt pour tabax. mënees na leen defal ay jàppandal si def ay prêt ngir am kër fii ci Sénégal dinañu waxtaan tamit si suñu solution banque à distance yi leen di yombalal. lépp lu jëm ci wàllu yónnee wala jot xaalis si ay jumtukaay yu méngoo ak jamono te mucc ay ak lépp lu jëm si wàllu solution mobile banking ak web banking bu leen banque ak jagle di ngeen mën topp saytu ak gérer doxinu seen compte bancaire fépp foo leen nekk fekk si leen ñu ñoo ngi leen di xaar du 4 au 5 mai fële ci Paris le mai à Rome ak Bergamo ca tàmbali leen sumb seeni mëbët fépp fu leen mënti nekk ngir mu àntu fii ci seen dëkk nañu boole suñu doole ànd liggéey suñu gaal. Banque Atlantique, grandir ensemble.